Son première sortie at bi suuf jaasi pël ak aldemba bu bari jaasi pël aldemba jaasi pël moo ngem moo ngembul vert li aldemba bu bari moo ngem moo ñuul li moo naamali première demi-finale laissé Aldemba a Diassi Peulh Aldemba bu Bargny ak Diassi Peulh demi-finale Aldemba bu Bargny ak Diassi Peulh demi-finale Volcan ak Petit Sélé diggante diggante Aldemba Aldemba bu bari ak petit ak kii gaasi pël sele ak volcan beneen demi-finale bi daw na jël ko Aldemba jël na ko ma ngi koy mbot ma ngay mbot gaasi pël daan na ko Aldemba bu bari daan na na ko Aldemba bu bari demi-finale bi xoola gaasi pël ma nga daa waaru arbitre arbitre Petit Sélé ak Volcan diggante Petit Sélé ak Volcan Volcan moo ngeem moo ngeem lu xonq li daw na xar ba Petit Sélé Petit Sélé ak Kolka Aldemba ngi noonu dem na final ñoom ñaar ku daan Aldemba ngay am final daw la joor Kolka wër nañ la ndombo wër nañ la ndombo Petit Sélé final final final final final Orval Coly ba dem na final